C'était aussi la bienvenue euh, à la délégation nationale. Nous nous partout, un membre de la délégation va certainement procéder à la présentation euh, de sa délégation. Mais en quoi me fait de cette euh, organisation qui est en fait une suite logique suite à beaucoup de formations qu'on a faites sur le numérique. La dernière en date, c'est la formation en digital. Quand on parle de digital, c'est la voie à digital. Quand on parle elle », la vie, ne pouvait pas d'où le nom, donc la combinaison de digital. Parce qu'il y avait la formation euh, qui l'a précédée, mais qui était de façon opposée, donc on à l'ensemble des personne qui était là spécification qu'on a fait une discrimination positive parce qu'on a remarqué quand même que les banques étaient voisines dans hein, Donc, pour a donné de la chance euh, à, ces femmes. Et ce qui me plaît dans cette affaire, c'est-à-dire qu'on ait une recommandation par sur la question c'est quelle était la suite qui devrait être accordée à cette, formation. Et je me rappelle que vous avez donné, et que vous avez proposé deux choses. La première des choses, c'est-à-dire qu'on vous a formé pour que vous soyez entrepreneur. Donc n'attendez pas que les gens viennent d'abord, euh, viennent euh, faire une suivi, mais comptez d'abord sur vous-même. Ça c'était la première, euh, ça c'était euh, la première des choses. La deuxième des choses, et qui sont en train de réaliser aujourd'hui, c'est le suivi et nous avons une leçon. Je pense que dans ces deux années,

se rendait pas. Mais quand même, j'ai tenais à féliciter tout un chacun. En tout cas, vous dites cette activité qui est, que je salue à sa juste valeur. Donc vraiment, nous voulons payer une particularité à Jubel. maintenant les gens ne répondent pas à la l'appel. Mais aujourd'hui, la salle est bondée. <laughs> Et pourtant, les gens ne vont pas l'habitude de faire des réponses à, la à, sauf si en fait, ce sont des autres.

des femmes qui représentent représentants gouvernement. Et également M. Bach, hein, M. Si, pardon, le représentant association Soyons Ensemble. Il y aller également Bayan, Marketing Solutions Center. Madame Bayan est tout l'offre de la semaine dernière. Dakar, en de pouvoir bureau festif.

suñu association ñi ko sañ Dakar waaye bëgg nañu fii ci Diourbel ñu am benn antenne moo tax waxtaan ak jigéen ñi nga xam ne ñi nekkoon ci Baol Digital Show bi gis pas-pas xam ne am nañ ko déjà ci li nga xam ne activité bi ñu ciy yëngu ak jumtukaayu xarala yu bees yi ñu am ci kenn koo xam ne nag wax dëgg nag mooy suñu partenaire dañu tàmbalee ba dégg nga xam ne mooy ay sa ñu nekk jox kàddu

CESTID nag li ko tax a mooy tey boo xoolee ñu ci teew fii ci nekk amee nga téléphone amee nga internet yaa ngi koy jëfandikoo ci say activité bés bu nekk waaye gis nañ ni jigéen yi foog ñu jàppale leen ba ñu xam ne tey gën a mën utiliser ngir bu ñu amee activité ñu gën a développé parce que tey ñu ngi ci doon waxtaan sànq

fes ci Ziguinchor ak fes ci Kédougou ndaxte am gëm nañ ni bu nekk jigéen ñi mën nañ leen jàppale organiser leen ba nga xam ne tuuti xam-xam boo xam ne ñun am nañ ko ci jumtukaay xala yu wees yi ñu sottante ci xalaat jàppale ñu si ba nga xam ne ñoom ci seen bopp dinañ jàppale yeneen jigéen parce que li ñuy gis ni mooy li muy béy ci taal bi.

Euh, dimbalante boobu dafa doon loo xam ne daf ñu soxal ñun UGPM ci la ñuy yëngatu ba su nekk maanaam ci bureau bi ci membre yi dañu am yoo xam ne ku si nekk boo xëyee da ngay information wala formation wala loo xam ne dina mën njëriñ sa moromu jigéen nga nga nga nga ko ak moom ba noppi.

dinañ ci ñëw nag dans le détail tey dañu bëggoon vraiment le financement officiel ak autorités yi ak suñu partenaires yi euh, di leen remercier encore parce que vraiment yaatal ngeen ñu jàppale ngeen ñu xale yi une semaine yi ñu ci organisation cérémonie bi dafay won seen pas-pas dafay wane ni li ñuy te gëm-gëm boobu ñun daf ñuy gën a dooleel daf ñuy

man maa ngi tudd Aïssatou Dieng Mbaye nekk représentante bu uh, ah! FESTIC FESTIC di Bawol fii. Uh, après nag uh, suñu formation Bawol digital show bi si la lépp doore pour wax leen ne ne daanaka ñu foofu la affaire yi démarré ah! ndax bi ñu formé ba pare li dee wane ne formation bi am na importance parce que am na suivi mënoon nañu formé ba pare rek bàyyi noonu mais après formation bi ah! Tata Solange daf ñu proposé. ne yéen lan ngeen bëgg a def ñu commencé wane ne ñun am nañ engagement détermination bi tam mu ngi fi parce que wane nañu ne ay jigéen lañu mais bëgguñu kenn koo xamante ne yërëm nañu mbaa ñu des ginnaaw benn yoon loolu bëgguñu ko gis nañu tamit ne euh, Sonatel mu ngi doon jàpp ci affaire mais après loolu gis ngeen fi la ñu dajaloo soyons ensemble parce que ñu ngi biir ñu porte ñëpp bu ñu demee réunion dañuy tijji buntu yi lu ñu neex lañ fay vraiment ñoom amuñu seen fay. fa la ñu produire suñu suñu eau de javel fa la ñu defaree suñu suñu saabu yëpp fa la ñu koy defee duñ ñu laaj dara kon dëkk bi am na ci ñoo xamante ni vraiment a liggéey soo demee ci ñoom laaj jàpp vraiment ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax te wax ñun liggéey mooy tax a jóg ku ñëw mën na ñëw bokk ci ñun parce que affaire affaire ay satu chaque jour dama koy wax ay satu moomu ko euh, Boulaye moomu ko Ismaïla moomu ko keneen ak keneen moomu ko waaye jur benn ñëpp ko moom kon lu ngeen dégg rek war ngeen a mën a ñëw yëpp ansa ñëw xam ba xam ni lan moo ko baax di remercier tamit ñi nga xam ne dañ leen oo ñu wuy si parce que ñii nit di leen jóge ñi toog ñii nit di leen jóge ñii neppe leen jóge te loolu yombul boo ñu wuy si la yombul kon vraiment ñii mënuñu leen a fay. mais loolu yombul ci suba lañ fi ñëw ñoom sax ñoo ngi fi jiitu na la bëri demee fekk na leen ñu bàyyi seen cité yëpp ñëw toog lii ñu de xam lan mooy festif tey nag dinañ leen leeral luy festif ba mu dugg ci seen bopp ngeen xam ñun lan moo ñu tax a jóg merci beaucoup. day def li ñuy woowee une moom ku ko gis doo laajte ndax si information nga kii wu ba moom laajte parce que lu dépend la kenn du ko jéem beneen bi ma ci gën a attiré waa sama attention mooy l'échange nit nit boo ko jegee di xam lan mooy soxlaam boo amee ay soxlaam nit boo koy jàppale da koy jàppale ci dimbali doo fekk ku boppam jumee ngay bës tànkam dañ koy laaj ba xam lan mooy mbir nga xool fii mbir nga jéem koo kasal comme ni ñu koy waxee en tout cas maanaam semence bi fii ko jàpp daal man yaakaar naa ne foofu la donc bi ñu tardé on va donner la parole à madame Francine Daba Dione bi nga xam ne moom mooy représenter Corsoyen on va lui donner la remercier yéen ñëpp ñu ci teew Je remercier aussi euh, son maman euh, madame Nia Adama l'ex-présidente AFDD du euh, l'ex euh, association buy recouvrir également les femmes notre peu Euh, di yëngu aussi du wàllu accompagnement ak autonomisation des femmes merci beaucoup maman Adama <laughs> d'être là <laughs> alors comme nous Euh,

Ils utilisent Internet. Si TikTok est né, que euh, YouTube, TikTok, Kakakakul. 90% y a. Dans le milieu. Il n'y a que les 10% qui ont utilisé la connexion Internet, accès au téléphone pour dire, pour am am am. Nous n'avons que 10% qui ont été dans Parce que ils sont une autonomes. C'est une famille qui ont été dans C'est donc également une famille qui ont été dans Nous avons une connexion Internet. ngeen ci jàng bi ci def ay formation pour ngeen am ay xam-xam te xam-xam bi ngeen di am doo leen moom ah dee rek moo leen di tàggale xam bi ngeen di am tey di ngeen ci jëriñoo seen entourage jëriñoo ci seen doom également jëriñoo ci parce que tey bu dee da ngeen di euh, def transformation et bi ngeen utiliser numérique jaay seen seen seen chiffre d'affaires mooy yokk tey di ngeen di autonome boo leen autonome seen jëkkër yi ñoom ñoom ñoom ngeen di noppal parce que léegi benn loxo loxo ñoom moo mën a yor kër tey soo leen autonomie financièrement ñenn ñoo ciy bénéficié wu seen doom ndax di ngeen leen mën a fayal jàng éduquer leen donc ci loolu leen leen di ñaar tey c'est bien beau ngeen jënd ay greffage fii jënd ay kii fii mais da ngeen ciy comp tuuti rek jëmale ko seen bopp parce que investissement bu gën ci investissement mooy nga investir sur soi te nen nga mën a investir sur soi mooy nga jàng am xam-xam

dañ leen di andi li nga xamante ne di ngeen mën a éduquer seen bopp tamit seen ngir seen euh, seen entourage bénéficier si OCM programme la euh, initié par euh, l'université numérique Cheikh Hamidou Kane et c'est financé par Mastercard Foundation dañuy offrir des formations en e-business je me dis que e-business bi peut-être moo leen gën a intéressé parce que sama mbokk bawal bawal ngeen man bay bayaa bii laa dëkk falaate saako sama yaay ko la dëkk sama papa la dëkk donc e-business Uh, astăzi ca certificativ. mooy marketing digital commerce digital ak entrepreneuriat numérique bu ñu waxee commerce digital mooy tey ma am ay produits mën a utiliser internet mën a utiliser digital pour commercialiser tey marketing digital mooy tey man ah nekk naa uh, association wala nekk naa entreprise wala ba loo mënti doon mais tey nan lay def ba nit ñi gën ma xam ci li may def à travers des formations ci biir nan ngay defaree ay affiches. lan ngay defaree logo tey soo ko mënulee nga bëgg a wane sa image mu xam yow yaay kan da ngay fay pour ñu defal la ko du dëgg loolu noonu xaalis bi ngay génnee la ñu nag da ngay former gratuitement c' est gratuit il suffit juste nga mun lire mun bind am am téléphone portable suffit largement pour nga mun a def formation yu mel noonu tey dañ lay jàngal yow sa jëmu bopp nga mun a defaral sa bopp loolu mun a defaral sa bopp ay affiche

Euh, moy ñëpp ñi nga xamné projet personnel dañ ci tout euh, touche numérique rek ci nga restauration ah, def restauration def dara numérique mais dañ tout touche numérique marketing digital pour euh, sama utiliser le numérique pour jël rendez pour commande euh, au lieu de vous numérisez de telle sorte que tu vas gagner du temps et tu vas être productif en fait. Donc, nous inscrire inscrit dans l'entrepreneuriat euh, numérique, venir bénéficier de l'accompagnement technique avec un fonds d'amortissage euh, de, 1 1000 dollars pour un début, après 5000 dollars. Et c'est des fonds, ne sont pas remboursables jàppale la techniquement formé la jàppale la techniquement jox la des outils yu lay permettre yow tey nga mën a gën a suqali li ngay def teg ci jox la tuuti xaalis ne la ah développé boo du ma gisee ne développé nga ma yokkal la donc loolu neen donc la balle est vraiment dans votre vraiment donc yéen ci une tey am nañ séance à 16h conseil départemental 16h pour gën expliquer formation yi nga xamante ne mooy correspondre à ce profil ak opportunité yi ngeen ci mën a am ak métier yi ngeen mën a def ci formation yooyu affiche yaa ngi nii après dinaa leen ko distribuer donc tey FESTIC loolu yoo leen andil comme opportunité euh, président dañuy démarrer Bawal euh, FESTIC Bawal mais dañ ci yokk opportunité bi nga xamante ne tey mën nañ démarrer formation à travers euh, l'opportunité de de Force R merci beaucoup vraiment donc avant de donner la parole au représentant du gouvernement, on va donner d'abord la parole à Mme Awanyan, qui est chargée de la commission des relations extérieures Mme Awanyan, vous avez la parole. day uh, they don't make it nag lool ndaxte ku wax bawal am loo xam ne lu bëri sa xel da cay dem donc jaadu na ñi bawal nekkee région de Diourbel nekkee deux sept villes en terme de population after the activity d' activité économique bi parce que gëstu xool leen ñu ànd président mais ah am nañ yéene kat. ni que jigéen ñi meleen euh, Dakar ñu ñu defee noonu fii ci Bawol jéem a xool ana naka lañ leen di jàppale ngir bi nga xam ne nekk neen ci sax gën a gën a gën a gën a jëm kanam je pense li euh, Francine wax te li président wax dal na xel li ci des nag euh, la la exi wax léegi nii may la gën wala ni ñu koy nappee moo ko gën ndax loolu moo la investissement dama ndaxte wax dëgg yàlla tey jii góor baax na jigéen baax te ku ci nekk xam nga ne tey jii macha allah donte góor ñaa ngi fi de ndaxte ku ne jigéen ne góor waaye ku ne góor ne jigéen tamit su ko defee nag ñu gën a ñogal euh, suñu liggéey gën a am pour ak fayda aussi suñu bopp bàyyi xel njaboot di wax ne ni tamit ab xéwal boo xamee ne yàlla wax na ci ñun dañ ci jéem a góorgóorlu xam naa nag wax ji du gudd ndax damaa bokk ci ci mbirum waaye di kàddu yu ñu war

Rokhaya Solange xam naa ne turu président la jël waaye dina ko may compliment introduire ko ci turu euh, directrice du département lépp loo xam ne ci wàllu entreprise lay def la RSE ci xalaatam bu rafet bi ak euh, ci ci gàttal maam ci dogalu suñu borom mu yoroon liggéey boo xam ne dañu doon tuddee Orange Digital Center Orange Digital Center te amoon ci ci biiram euh, benn école ñoo tudd luy tudd sax ba léegi Sonatel Académie ma yaakaar ne ñu bëri ci yéen euh, dégg ngeen ko. parce que Demba Ndiaye bu ñu fi ñëwee ci digital show bi tamit ànd nañu ak euh, Ismaïla comme ni ko président waxee ñoom ñu fi ay formation ñun nag yàlla dafa ko dégg gannaaw ba président dëkkee sant euh, mbir moomu lu waroon digital centre yàlla tàbbi ko te teg ko suñu loxo. centre boobu tamit bu ñu ko gisee ci formation rek lay nekk li nga fi teg yëpp mooy jéem a xool ndaw rawatina jigéen ñi naka la ñuy def ay la yëwee.

మొట్టమొదటి li ñu war a nekk ak sang bi muy wàllu formation ñun dañoo gëm ne formation mooy base bu lépp ndax bu dëgg yàlla mënoo tari doo jàng talibã, loo doonul la taalibe rek loo doonul sëriñ donc bu ko defee daal lu leen yëpp rek gàllankoor ñu jéem a góorgóorlu profité ci li nga xam ne festival yi na ko tey. te bu ñu xewoon bu rëy nag ndax yeneen région bu bëri bëgg nañ ko donc am na plan boo xam ne ci at bi la jëm dem ci gox goxaat yi comme ni ma ko waxee dem Saint-Louis dem Ziguinchor dem Kédougou comme yàlla dogal na ci yéen lañu jógee ñu bëgg nag ngeen fësal maanaam seen seen yéene ci ci yéen bi yëngu ba nga xam ne ne ah dañ ne ah suñu bopp bawal nag comme ni ko François waxee ne moom fi la ah kenn dem na muy des bu ko defee bàyyi nañ xel wàllu formation encore une fois loo doonul taalibe loo doonul sëriñ dañu góorgóorlu ci formation góorgóorlu ci xam-xam bi góorgóorlu ci li ma fexe tey dañu toll woon fii ñaan yàlla suñu borom la ñu toll woon tey waaw loolu moo doon suñu kàddu daal président maa ngi déglu di wàññi sama kàddu bi di ziaraat ñëpp ñu ngi tàmbali ci ñëpp kenn ku nekk dama tàmbali. ñu ngi d' abord président de you and the left. If you represent Amat Concepcion as Kasi Astronaut, so I am Assam, representing Superintendent C. Manila, which has been raised on a red to represent the governor, Marquardt as actually the treasure person. In the past, I have worked with someone there, and they say, Bollywood Rakesh Varadhan, and they were the first to be connected to the Obama. c'est un peu retardé, cette importante activité. On est encore là pour représenter aussi le président de l'AMICA. L'État embryonnaire, quand même, commence à faire ses efforts. Et nous souhaitons quand même, ça continue comme ça. Il y a beaucoup d'activités qui sont prévues aujourd'hui, le soir, avec, au niveau du conseil départemental, pour parler encore d'information parce que la masse féminine aujourd'hui a besoin d'information, a besoin de formation avant quand même d'aller vers la concrétisation de cette formation. Donc, euh, sans plus tarder, on va juste lancer cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui au nom du gouverneur et peut-être aussi à mesure pour intervenir par rapport à notre profil de chef de service qui est là pour accompagner les femmes. C'est vrai que les hommes ont besoin de cette formation, mais quand même, Didier, laissons honneur aujourd'hui aux femmes de savourer quand même de cette formation, de savourer quand même de cet appui, de cet accompagnement du festival. Et mention spécial à uh, Festival Et qui sont bien là représentés. Et ce qui me réjouit un peu, c'est que les localités qui ne sont pas de la commune, qui sont venues de très loin, de Dini, de Nébé, pour venir assister à ce rapport. Ça montre encore une fois qu'il y a une certaine motivation des femmes. Et on vous, encourage et on vous félicite par rapport à ça. Et nous sommes aussi engagés en tant que service à accompagner tout le processus cùng vừa đến từ các bạn nhạc sĩ để đưa ra ñëre ñoo xam parce que boo gisee ku jógee nekkee ba fii wala ku jógee duroo ba fii nga xam ne kooku boo xamul mën naa am bala koo woos fekk mu yow donc jigéen nag daa ci leen seen bopp daa ci leen seen bopp waaw xëy na nag dañuy dugg ci sujet bi li fi amoon nii yëpp xëy na présentation la xëy na yéene yi am ci programme bi moo tax

waaye waxtaan bi ci am solo mooy déglu leen tey buñ leen dégloo dina tax ba dina jàpp ne waa festival ñoom ay sax ah fii ñu ngi ko ginnaaw waaye Ndongué digital nga xam ne programme bi xam ne war nañ ko fa nit ci commencé tàmbali liggéey ndax seen liggéey bi comme mu tàmbali mu gën a gaaw donc delloo nañ ak kanam. merci beaucoup madame la présidente. Ah, salaamaaleykum. <laughs> mbooloo Madame madame Adama madame euh, assistante sociale de profession pour les femmes de prison Ndiarène Mes may présidente association des femmes pour le développement de l'urbain. Nous avons une nag délégation de la xam ni euh, donc suñu doom madame Rokhaya moo ko Inuyu representa el gobierno nuclear no kontaan bu baax sa teewaay di nuyu aussi suñu frère Bayon monsieur di nga xam ne nag dama rafetlu li mu gungee ah may jéggalu rek autorisation madame la présidente bi nga xamee nag dalal naa ko bu baax ci bawal mu may ma rek tuuti rek borom loolu ñu euh, sama doom Franklin sama doom la tey sax en tant que mag troisième âge moo ma inspiré encouragé ma ba ma embrassé la digitalisation euh, depuis mu nekk étudiante UG ah tabaarkàlla mu gëm ko lool nag di ci góorgóorlu ci xarale bi ba macha allah loolu man dama ko wax yéen xam ngeen kon nag lii tey ñun Bawol dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax tey bu yàlla defee doomu Bawol ànd ak équipe am ñuy liggéey di ay jigéen nag parce que nag man dama gëm jigéen. dama gëm promotion jigéen dama gëm jigéen buy góorgóorlu ngeen yàq nag fu na dégg nañ leen ngeen nekk au sommet xalaat ni seen sœur yi ci suuf dañu soxla ku ci mel ne ñu jigéen ñu jàmbaar hérité njàmbaaru seeni waajur ci jaay ci artisanat façon bu commerce bu ne waaye tey jàng nañu nag mais comme ni ko chargé relation extérieure waxee des fois njàng mi dafay sooxe parce que ku ne xam na ni pauvreté dafay prendre éducation xale bu jigéen ñun suñu association bi am na sama ay membres jeunes yi nga xam ne ñu ngi ci biir ma koy rafetlu donc di leen nuyu bu baax nag di kontaan waaye man tey ay sakku maa ngi lay féliciter di la ndokkeel ci sa liggéey bu rafet parce que démarche participative ak inclusive bi mu def. naam man bi ma ñëwee sama doom bi dafa ñëw toog sama wet mu ne dindi la jóge te ku ne xam ne Jurbel ak nit di sori na avec une forte délégation ñoom ci développement la ñu nekk demuñu université waaye jàmbaar la ci li nga xam ne mooy lii transformation fii ay femmes transformatrices ñoo fi ne maintenant nan la ñuy def ba seen yi ñuy defar ñu mën ko commercialiser mu amal leen njëriñ yaakaar naa ni yéen ñi fi teew yëpp nañu sant yàlla ñii dañoo ñëw pour ñëw jàppale ndax ñun nag suñu organisation yi ah ki nga xam ni moom AFDD la nekk ñu ngi fi duma ko wax formé nañ leen ci lii digitalisation formé nañ leen ci technique yëpp dañu jëkk sax def prise parole parce que canadiens yi ñoo doon suñu partenaire suñu gunge ñu gëm loolu prise parole en public dafa am solo façon technique communique yëpp formation yëpp defal nañ leen waaye tey dafa am lu am solo loo xam ni festif daf ko def muy lan suivi gis nga gis nga gaar gestion accès au résultat tey loolu ngeen def ñu koy rafetlu bu baax a baax a baax tey ñi nekk ñëpp ku ñun informatique lañ ko tuddee dañ naan def nañ informatique waaye lu ñuy jariñ donc Francine da nga wax lu am solo TikTok yeeg pour karaj yeeg karaj karaj amul jël secret bi nga def wala sa wifi mu jeex jamono bi dafa métti waaye fexeel ba def ci loo xam ne en retour dalay amal njëg nga xool ci loo xam ne man tey su ma jàngee lii mën naa ci jaay sama marchandise wala ma def ci leneen wala ma am ci ay partenaires yoo xam ne mën naa cee liggéey loo xam ne dina ma muy partenaire ñaaka ñaaka ña kon kay li ngeen indi am na solo te itam li gën a rafet ngeen étendre ko nag ci territoire naam ndar ngeen naroon na sax dem parce que ndar suñu dëkk la waaye nag bawal nag te nag nag moom la ñu yàlla jagle. moom tey bi ngeen ñëwee di dem ndax moom yóbbu leen ni leen sax bawal d'abord. kon alhamdulilah rabbil alamin sama xale yi kon man dama dama dama dama kontaan man ak prioritaire yi rek moom laa sax di ngeen wax muy maanaam formation de contenu ak plaidoyer plaidoyer bi nag na ngeen fexe ba tàggat leen ci communication parce que nag soo ko am na ngay wax moo tax man. dama ne ci axe prioritaire yi damaa indi man devise boo xam ne communication formation ak mobilisation ñett ñooñu laa bëgg ñu dëxëñ ngeen def ko ay module jagleel ko Bawal kon seen mobilisation sociale bi am na solo invitation bi Dakar laa jóge yow xam nga bàyyi nga ma Dakar mais dafa insister ne maman mënuma dem sa dëkk te doo ñëw ma ne ko waaw mi ni xale yi la soyons ensemble ma tamit lépp macha allah ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér bàyyi ma ma rek les fii nga ñu ma déedéet mais je pas de regret parce que ñu dañu sonn ci relève intergénérationnel dañ ci liggéey liggéey ci sonn ci gëm am na benn activité bu ma doon mbàkk def mbàkke ñëpp di ma gën mais leneen préfet bi wax da ngeen góorgóorlu ba région Diourbel mu am ay madame ñaa madame ñaa madame ñaa ñun loolu la ñu soxla loolu mooy doon suñu fiyat ñu fexe ba xale bi ñun góorgóorlu ndax ñun fekke wuñu lii fekke wuñu digitalisation mais comme lu mel ne suñu doom yi ak lu mu mënti demee lu sot dégul di soxal ko bugg ci ba yàlla duñu dimbale ñuy dem ci projet yi parce que ñoo ko ñoo ko bëgg parce que jigéen noonu lay def jigéen dafa war a góorgóorlu nga xam moo jigéen moo yor famille jigéen mooy àddina tey jigéen bu taxawee rek mat la mu mat sëkk taxaw na yàlla mën naa def famille bi askan wi dañu suqali foofu la ñu toll waaye nag mënoo foog naan bi de dafa fal jigéen. musuma jàll fi góor ma wala nga naan naan ne fa li nga xam ñu gis la far la teg la place mooy la formation il faut renforcement des capacités nañ ko gëm nañ ci jàppale xale yi xale yi ngeen gëm jigéen y a de incha il y a ngi ci soyons ensemble mi ci ñeneen parce que am les synergies d'action D'accord ni dafa dafa pas nga ci non non non non non il faut unir les actions ñun ñëpp ñu àndandoo lëkkaloo ko loolu la gis Union africaine ma Nous ñun ñëpp dañuy àndandoo joxante loxo ñun ñëpp ñu ànd suñu autorité administrative yi gunge ñu kon nag ci gàttal foofu rek laay dem di kontaan di ñaanal bu baax a baax a baax a baax ay sa yàlla mission te incha allah na nga ñeme ñu ngi fii ñun ak suñu expérience ak suñu expertise lu ngeen ñu soxla. di remercier. de ceux qui se sont déplacés de Dakar jusqu'ici di leen wax ne bienvenue dans la chaleur na ngeen engrais vraiment moom it ku mën a jàppale doomu aadama la moom bu sañoon jigéen ñëpp dem ci kanam donc bu sañoon jigéen ñépp ku nekk mënal boppam te taa aada nee naa leen bu ñu waxee ma ne leen taa aada il est temps que moom mu toog noppalu ñun ñuy dellaare leen parce que moom comme ni mu ko waxee xam gaa ngi fi te yaatu nañ donc ñun ñun ndaw yi ñun ñoo xaw a la def pour ñun ñu bëri nag mën a jël relève bi man à chaque fois bu ñu amee rajo dama ko naan saa aada de jot na waaye ñun ñoo xaw a xaw ma dañoo yembar xaw ma dañoo tayal xaw ma dañoo def waaw waaw moom moom business la may soxla nee na naa man may rafetlu vraiment lii comme ñun moom dañuy yëngu ci business dañuy naan lii c'est c'est venu à à c'est venu à l'heure parce que ku ci mel ni man je paye beaucoup d'argent pour ay ay flyers ay ay ay logo ay carte de membre ak yooyu noonu carte de visite donc grâce à la formation que j'ai subie ici dina ma permettre yenn yu bëri ma koy mën a sama bopp yéen nag boo leen ba ma am seen numéro di ngeen di ngeen sonn fexe leen ba mooy wax seen donc ñu leen di remercier bu baax fi ñuy insister mooy li ñuy bëgg rek mooy ngeen gën ñoo dimbale gën ñoo orienté ci li nga xam ne ku nekk la nga yëngu ku nekk ci li nga yëngu ngeen jàppale ñu waxuma financièrement mais ak technique ngeen jàppale ñu ba ñu mën a jëmmal li ñuy def ku nekk si ñun merci beaucoup. en tant que femme sénégalaise, ah motivée, ah, innovatrice, challenger, euh, comment vous vous le travail, la famille, ah la vie personnelle au, sein de votre organisation Puisque nous ne des pas au foyer et experte de famille, nous sommes le même non les deux pour nous vie professionnelle avec euh, vie familiale. Deuxième question, oui. Euh, quels, sont les quels sont vos objectifs stratégiques de l'organisation pour les cinq prochaines années à venir Merci beaucoup.

ñu daal bu ñu sañoon dinañu dimbale ay jigéen nañu tolluñu ni sax ñu ngi yëngu si si si lu nekk waaye bu ñu sañoon daal nan la ñu jàppale dimbale si lieu boo xamante ni ndax euh, mës nañu am terrain boo xam ne mu nga fa dañu ko maire moo ñu ko mayoon terrain bi mais ba tey defaruñu ko terrain bi mu ngi foofu kon bu ñu sañoon dina am koo ne ngeen ñu dimbale si lieu boobu ñu defar ko en même temps ngeen jàppale ñu si formation bi si bëri nañu si dimbale. moo si dimbale tamit loolu dina ci gën a jàpp bu baax a baax a baax di sant bu baax nag di ñaanal rek mais ndaw lu nekk rek boole nañ ñu koy ñaanal di ko ko yaakaar rek yàlla suñu borom may kawe njortam parce que li ñu ngi ci saabal bi ñuy ñëw ci gàttal ñuy ñëw ndax moom lu mu nekk boole nañ te lu ñu liggéey rek li ma andi ci bokk nañ ndax lii nii nii muy wane nii tey mu def ko fii daf ñu daan fekk ba nit kon xam nga ni yàgg na koo liggéey liggéeyam la kon tamit ñu ngi leen di ñaan rek ngeen jàppale nit ci loolu lu gën a bari ñu am ko tamit ñu ngi te leen ñaan tamit ba noonu ko ku ko jaay waxee rek ngeen gën ñu see jàppale waaw loolu daal lañ ko moom it ñu ñu ngi leen di wax di leen jaajëfal bu baax ci li ñu woote bi ak tamit dajale bi ngeen di dajale bi pour lu ñu dimbali rek ak lu ñu dimbali ñoom leen di sant bu baax di leen ci jaajëfal yàlla leen ci yàlla defal jàmm defal leen ci lu kawe seen jox Digital Business Bowl. Je suis le responsable du marketing digital. En fait, je voulais savoir, après la formation, quels sont les avantages Par exemple, après formation, maanaam dinañ am ay attestation luy wane que ni euh, par exemple soo paree sa formation bi nga mën a déposé ci entreprise bi ñu jël la wala dara bi da koy avantage daal laa bëggoon xam après formation ba xam attestation c'est reconnu par l'État ou ah loolu bu ko defee day mën a permettre les les femmes ñoo ne fii au niveau du Sénégal di yëngu ci loolu te gisuñu fu mën a jaayee. mu am possibilité boobu parce que numérique bi foofu la war a mën a doon la nga liggéey jot ngay laaj da ngay wax naan fii laa ko defee fee laa ko defee da ngay ñëw dugal ne lii laa def ko topp ñu ne xam ne lii gan barab sangam mën na fa localiser tout des choses nga mën a permettre rek yéen doon soxla ci produit yi boo xam ne dafa war a exporter wala wala kenn soxla ko ci biir dëkk bi dañu mën a ñëw jóge foofu ci à partir du plateforme wax ne ni sàmm xajal ma sàngam waaw dina mën a permettre ci ñi ñëpp ci produit yi buñ ko bàyyi foofu sax ko ba mu yàqu dootul am day ma permettre itam information bi day jàll ci nekk la looy produire rek daa am société boo xamante ni moom moo koy nekk loolu laa xalaatoon ci wàllu numérique boobu war nañ cee mën a taxaw ma jàpp ne bu ko jëlee moom tam dina mën a am per dina permettre vente euh, bi gën a yokku dina mën a permettre les relations aussi entre les personnes day yokk formation bi aussi euh, day day jàll parce que da nga xamante ni formation lañ ko def benn plateforme boo xamante ni formation bu am dañ ko fay dugal les gens qui sont connectés là toute cette plateforme là Donc, mën a am une information boobu noonu lépp lu ci am rek ñu donc danañu jox aussi expérience pour xamante ni donc. di nuyu aussi sunu gan yi nga xamante ni ñoom ñoo jógee Dakar ñoo fii di leen dalal aussi si Diourbel man maa ngi tudd Ndeye Anna Sarr comme ni ko waxee rek di liggéey ONG Ndeye Jirim ONG Ndeye Jirim moom mu ngi nekk quartier Thierno Kandji foofu laa nekk di fa liggéeyal. léegi kon ni ñu ko waxee rek ci affaire yu numérique parce que numérique utilisation du numérique dafa am les avantages am les inconvénients ñun nag si loolu liggéey nañ ci lu bari parce que ci ONG Ndeye Diagne dañuy liggéey ak ay daara ay xale taalibe am na fi posé question sànq mooy question dernière question bi nga wax présidente ci femme yi nga xamante ni yoo nekk si daara yi mën nañoo bénéficier wu si numérique yi si loolu ñu xale nekk si daara yi parce que Diourbel dañoo am ay daara yoo xamante ni dañuy liggéey ak ñoom ak ak yool yi daara yi nag dañoo foog ay collège des daara kon gouvernement scolaire ni muy amee ci école yi dañoo am ay collège des daara yi nga xamante ni daf leen a mettre en place ci daara yi même école yi aussi dañuy travailler ak ñoom si xale yi nga xam dañoo nekk si daara yi dañ ci tànn ay xale yoo xam te dañ leen formé woon si formation boobu formation kan la maa ngi ci saluer Ismaël aussi di ko ci remercier parce que moo formé xale

ci journée de journée africaine de la ci journée africaine de l'enfant bi nga xam te ni édition 2023 la mooy bi Fatiani Fatiani nekkee ministre de la femme mooy bi ñu doon def au niveau mairie esplanade mairie bi mm-hmm. xale yi am na message yoo xam te ni moom doon lay si écran bi xale yi ñu formé Canva ñoom ñoo defar message def si ay logo yoo xam rafet dem partager logo yooyu ci journée environnement bi sensibiliser aussi seen morom yi si les avantages ak inconvénients yi nga xamante nii si utilisation numérique bi dañ koy aussi yooyu espèce de théâtrage les enfants aussi mooy enfants yi nekk gouvernement scolaire yi ak collège des daara yi def nañ ci ay espèce théâtrage pour sensibiliser aussi seen père yi nga xamante nii technologie parce que li ciy wax dëgg la technologie am na les avantages am na les inconvénients parce que xale mën nañoo jëm ñii di jaar jaar moo leen tax yor ko téléphone internet mais am na ñoo xam dañ ciy seetaan ak su dul loolu si loolu nag lañ bëgg xale yi. ñu bàyyi li nga xamante ni moom la ñuy seetaan si lañ defee sclérotérapie bi ak message yi nga xamante ni moom la ñuy véhiculer jour boobu pour sensibiliser fee ni à que journée boobu journée de nañ presque euh, Sénégal tout le Sénégal yëpp présent woon nañ yëpp nekk gis nañ message yi nga xamante ni xale yi ñoom ko def ci loolu laa amoon ay expérience yi nga xamante ni moom laa doon partagé si daara yi ñuy liggéey xale yi nga xam ne formé nañ leen travers Tambacounda si si à période Covid aussi def a ay messages de sensibilisation yo xamante ni xalé yi ñoom ñoo defar message yi def des ay logo def ay caravane de sensibilisation mais aussi message yooyu dañ ko dans les réseaux sociaux à travers WhatsApp Facebook c'est même seen page yi def ko ay pour sensibiliser population que c'est un comportement yi nga ni pour éviter les mesures merci beaucoup. maintenant avantage avantage les enfants la plupart que les enfants une importance particulière à la maison. parce que lu si Paris, mais am nañ appareil sophistiqué mais toujours il faut que nous recourions au service des enfants et kaay defal ma lii kaay quand il y a des ma laa te loolu dafay valoriser en fait l' enfant loolu dafay tax bu kii mu gën a mu gën a mu gën a xare mais quelque part ça doit nous amener nous les adultes à ce qu'il y tamit une culture pour xool lan la xale yi di def si Facebook yi ak si kii ba fekkee dañu bàyyi yéen donc ak seen euh, kii ak seen ak seen xale ëllëg am na dugg foo xam ne doo leen ko xam te tant que ko rek mun leen mun leen mun leen mun leen ko tere donc loolu nekkoon loo xam ne lu mu lu mu si yokk la bon comme je ne prendrai la parole euh, au moment de la clôture parce que le soin moo am gouverneur mais si biir à la délégation nationale Je voudrais vraiment saluer le le fait de l'Union ñëw à quoi parce que ce pas pas facile d'organiser au niveau de Diourbel avec ces communes et Ndindy est très enclavé. c'est la première des choses. la deuxième des choses mooy que dañ pas organiser avec la la deuxième des choses moi, que dañ organiser à un jour qui n'est pas favorable par rapport à l'accès à Diourbel. parce que bu doon jour jeudi. amul marché. marché hebdomadaire dafay am donc l'accès à Libreville est très facile. je sais que les trouveront des problèmes ils ont trouvé des problèmes pour venir mais ils ont trouvé encore des problèmes pour rentrer parce que Diourbel est enclavé par par par rapport à ça c'est le bien jeudi. je le soulève tout juste pour montrer que ne. takkute euh, bi nga xam ne waa Ndindi wane nañ ko ak waa Ndembe te vraiment waxuma woon sa discours euh, nii moom moo tax ma bëgg a rafetlu ko par rapport à ça am na aussi. am na solo trop waaye kàddu boo leen fi mënti am na solo te ñun ñii daf ñuy jëriñ sax ci activité yi nga xam ne bëgg nañ ko soxal ci ci Mbao. effectivement madame Niang maa ngi lay gërëm di la

xam ne wax nañ ci waxu digital bi am na proposition boo xam ne def nañ ko fàttali ma tur bi. Cheikh Seck lu am solo nga wax. gis nga Sonatel am nañu concept boo xam ne ñu ngi tudd Sonatel ci seen bopp maanaam dañuy def ci benn bopp xool gox boobu lan la ñuy yëngatu ñu jàppale leen ba nga xam ne dañ leen di woon jumtukaayu xaaru bees yi mu mën jàppale. activité gox bi ba suqali donc li ngay wax du leneen lu dul lool donc concept boobu suba dañuy dem Touba parce que Touba dañ koy def Touba euh, suba dañ koy def Touba dinañ ànd nga xool activité bi nga adapté ko boobu projet boobu nekk na ko léegi incha allah. ah mën nañ bokk ci formation bi ci lu wér.

laaj bi ñuy gën a faral di am mooy boobu naka la ñuy ba amee kër yi toppatoo jëkkër yi toppatoo xale yi toppatoo goro yi xëy dem liggéeyi maanaam loolu foog naa ñu ngeen di taxaw suñu bopp. waaye ñi ciy góorgóorlu wax dëgg yàlla yàlla mi ngi ciy jàppale parce que jigéen ñi dañu xale ñu te jigéen ñi lu ñu mën wax dëgg yàlla la góor yi mënuñu. boo nit ko xam sax xam day boo nekkee ci kër gi da ngay xool yoo nekk jigéen bi boo nekkee ci kër gi lépp li ngay gérer nga xool wàññi di nga xool xale yi di nga daw marché dem ñëw gis ngeen loolu yëpp ngeen di def bu leen ko xeeb maanaam dañ ko tàmm ba ni lu naturel la mais non loolu jigéen ñi ñun ñoo ko mën def bu bëri dañ koy def dèjà moo tax loolu gis nga équilibre boobu ngay wax loolu yaa koy def dèjà te xamoo ko te amoo ci conscience parce que yow mii di wax yaa ngi ci kër gi wala wala yaa ngi yëngatu te yaa ngi sa entreprise yow naka ngay def ba def loolu ba ba gérer loolu yëpp donc loolu yëpp te dafa am lenn aussi lu am solo jigéen ñi mooy sottante xalaat ku ci nekk wax moromam. naka lay def bu amee lenn li keneen jàppale ko ci jàppale bee ci jigéen ñi dafa am solo trop trop te ñun Dakar aussi dañ koy def. ci groupe bi da ngay gis ay groupe WhatsApp yoo xam ne dañuy xëy par exemple bu fekk nga lay am màggal wala ñëw wala wala gàmmu wala tabaski ñëpp ñi ngi joxe ay contacts pour wut ñu ci kër yi. kii mi ngi daan waaw man sama jàpp mi ngi dem suba bu deux semaines kan moo ma ciy jàppale kii yónnee ko juróom ne wootee fii keneen ki ne ko boo buggee aussi ah, am na kuy traiteur boo xam ne mun na la toggal ay sauce nga def ko ci congélateur mu ne ko ah yónnee ko numéro téléphone bi donc gis nga loolu dimbalante bi te ñun jigéen ci nekk mën nga dimbale sa morom bu jigéen noonu def nañuy fonctionner la kese jàppale te suñu jigéen

dinañ la ci dinañ la ci invité soo ko yàlla dinañ la ci boole. beneen question bi mi ngi doon jëm ci wa commercialisation produits locaux donc daal naka dañ leen di jàppale ñun nag Festic li ñuy tax a jóg mooy jàppale jigéen ñi ci lépp luy jëm jumtukaay familial waaye teewul.

moom euh, leeral na question yu donc damay ñëw complété tout ci wàllu formation bi parce que FESTIC dafay offrir également des formations euh, pour jigéen formation yooyu FESTIC moo leen di defal attestation de participation donc la am attestation de participation et attestation de réussite parce que des fois euh, dañuy mettre en partenariat avec ñeneen ñi nga xamante formation yooyu c'est certifiant soo ko defee une plateforme si on ne ba pas yëpp automatiquement on a jox certificat automatiquement donc formation yooyu di testé ok Ce n'est pas des formations certifiantes di nga a am des formations yi nga attestation maintenant par rapport à formation au ma de andi euh, opportunité bu la formation c'est à travers Force M Force M comme vous ma ko euh, c'est initié par l'Université université numérique Cheikh Hamidou Kane xam ngeen ko voilà mooy ex UVS formation c'est des formations certifiantes si plateforme c'est la en ligne Vous voulez inscrire ce n'est pas automatique pour ñu jël dañuy pré présélection derrière bu notification bi jël nañ donc formation yi euh, euh, euh, université numérique donc vous inscrire bu jël bu formation ak sa téléphone portable bu la tëdd sa formation vous demee ba de module organiser examen jour examen dañu koy mo notifié ne leen tel jour la ñuy organiser examen bi et c'est deux heures de temps boo leen amee moyen automatiquement da ngeen di si plateforme bi ngeen am seen certificat ñu bind ko seen tur et tout ça ne telle personne est certifiée euh, euh, à telle formation après bu leen neexee ngeen téléchargé euh, force n également am na day accompagner du former rek bàyyi da lay former ba pare accompagner la pour insérer parce que l'objectif de formation, euh, Force M, c'est de former 80 000 jeunes. C'est 80 000 jeunes, ils sont 70% de femmes. Donc, c'est plus jeunes encore. Euh, vous qui parlez, que 80 000 jeunes il faut on insérer accompagner à l'insertion parce que insérer accompagner beaucoup. parce que les les ne accompagnent à l'insertion non les ma ne woon former formé dañ ma wutal C'est alors que les accompagnés accompagner pour jàppale la à Maintenant, sur les 80, nous avons accompagné 70 000 jeunes insérés. 70 000 jeunes, nous 70% de femmes. Euh, après aussi, nous avons des partenariats avec entreprises. Par exemple, euh, depuis le hein. milieu, mercredi, moi mercredi nous avons aussi des entreprises. Euh, nous avons mobilisé pendant ces deux jours ñun la si si ñun la nek deux jours yi yëpp euh, ñu gis entreprise yi nga xamantene war nañ leen mën a recruter ñu waxtaan ak moom ñoom mën a xool nan la ñuy defee partenariat ak ñoom tey ki nga xam ne def na formation à travers Force L mu certifier Force L da lay accompagner tey entreprise boobu bu la jëlee di la fay 100000 francs tey Force L day ñëw jàppale entreprise bi ne ko 100000 nga koy fay ñun dinañ ko dinañ ko dinañ fay 50 yi moy manam 50 000 force M en charge yeneen 50 000 entreprises bay koy jël c'est pour encourager entreprise yi ñu les recruter parce qu'actuellement, nous constatons que entreprise yu bëri bu ñuy euh, lancer appel d'offres d'expérience euh, expérience 5 ans expérience 1 an expérience 6 mois alors que bu leen bu leen paree formation amoo expérience donc ñu force en dañuy def tout pour insérer les entreprises, mais nous expérience professionnelle donc dinañ accompagner entreprise bi pendant 6 mois di ko 50 du salaire 6 mois yi bu jeexee soit mu recruter la soit nga demaat ci beneen entreprise que moi aussi mu mën a jël keneen pour formation yi ma leen def

war na la mën a permettre sa nga defa benn flyer léegi nag li ci des yow yaa war a jaay sa li nga jàng su fekkee da nga ko jàng ba pare téye ko ci sa biir loolu du am solo mais su fekkee li nga jàng ñaar ñaari yoon ngay mën a am benn mooy comme ni ko président waxee sànq li ñuy di tubaab di tuddee sororité nga jël li nga jàng ne ne ah, man de ndogay bi nekk kër gi moom xam naa ne keroog ba may ba may def formation bi ndogay jotul ñëw waaye ma xooli ndogay war ko man li ma jot a jàng mm. bu ko defee yow li nga jàng di nga ci mën a jàppale ndogay mu ñu jàppale Anta mu ñu jàppale Penda ba nga xam ne bu doon benn nit moo suivre formation bi ñett ñi ñoo ci génn mën a formation parce que la nga jàng moom moom moom nga leen moom nga leen di bàcc boobu mooy benn mm. ñaareel mooy yow jàng nga yaa dëkk ci dëkk bi xam nga yaa gën a xam tey jii gox gi muy waa Ndindi wala waa Diourbel wala waa Touba wala waa ngay Mekhe ñooy gën a xam lan la gox bi di soxla ba tax na ñoom ñoo war a dem say am na loo xam ne ñu koy wax sànq ba tey maanaam ci jigéen ñi war a yëngu mais jigéen wartu toog marketing personnel bi ku nekk war nga mën a xool nooy def li nga am nga mën ko jaayee sa bopp bul xaar ma sànq wala ma dem di la ko wax yooyu yaay xam ndax macha allah xel yaa fi. lan nga mën a war a mën a def lu dul formation mais ci as tuut bi nga jàng bu dee benn wax bu sax wala bu dee ab 30 000 bu ne naka laay defaree par exemple business plan mais business ni ko soxna si waxee sànq ba sonn fen ci waa Bawol toog yekk ak jaay nañ def Bawol Bawol kay xalaat jeexal na wax donc am na loo xam ne ne xel boo ko tegee rek war na la mën a may yoon boo xam ne tey léegi la ci des mooy effectivement yenn entreprise yi dañ leen ne dañu soxla peut-être certification bi loolu xeewi na loolu c'était l'ancien modèle bi nga xam ne ne xëy na dañ ko hérité ci Occident mais boo ko xoolee tey ñu ci bëri ci ñun man dama jël sama carte tey jii euh, Sonatel tàbbi nañu jox ñu Orange Digital Center mais ñun jàng ñu digital soxna si ñun communication lañ jàng waaye ba digital jëlee ba mu ñëwee dañu ne kenn ñu ci ëpp

dañoo dem xaar seen yaay jaay marché ba ñëw ku ci nekk jël 2500 ku jël 2500 bi 5000 ñu jënd matériel ensemble mais kon même xale yooyu du 15 ans yi ñooy am xalaat boobu massivement ñoom te loolu opportunité bëri la te bu leen xeeb cest à que amul amul lu xeebu amul lu xeebu te yëf yi euh, euh, science lay doon ak teg ko ci xel rek mais soyez curieux jéem leen xam lan mooy xew ci dëkk bu leen xaar information bi ñëw jigéen yéen dem leen ci information bu fekkee ay jeunes. fexeel yow nu mu gën a gaawee da nga boo fekkee sa antenne nga def fi genre petit bureau boo xam ne di nga def ci ay partenariat yoo xam ne ñoo lay financé may la équipement may la matériel mën la permettre aussi nga mën a souscrire ci ay formation yu mel ni comme par exemple Orange Digital Center ñu loolu nañ sawar am na ku tudd Moussa digital tour digital lan la dem fekk ci ay soxna yoo xam ne ne amaana sax mosuñu gis ordinateur mosuñu laal ordinateur xamu xamuñu sax lan la ñuy defee touche ba lañ koy daal

Mais vous avez 10% de commandes, comment c'est mmh. qu'il Donc, il y a le président qui formation, opportunité est bonne, sur laquelle il y a un dispositif, maison digitale, une fondation, orange digital, certaines régions, digital, FN, initiative est bonne. Mais il y a des gens qui ont besoin. Et pour qu'il y ait un crédit, il faut qu'il commence à tamer. Et pour les créer, même pour qu'il commence par peine, au niveau de ce qu'il y a, il commence. Nous avons aussi le cas

li may nekk biir Sonatel li mel ni woon trop en difficulté li ngeen mel trop un jour daa awoon moom benn wax boo xam ne moom bés ba léegi te su loolu laa nekk ba tey yàlla fi mu dem muy taawoo ñëw tàggat na bu baax a baax. xam boo xam ne ci caractère bu la waxee mooy li mu lay wax ci caractère bu la waxee xam parce que man dama daan nekk ci ay activités yu bëri bëri au niveau de la DMGP. bu la xoolee rek xam nga li nga bëgg a wax mais bu la waxee ci kàddu parce que boo boo ko boo ko jëlee ak kër yi nga dem ko sori am chance yàlla boolema ñi nga xamante ne seen temps difficile muy moom muy daal koy sonal mais tamit lépp loo gis ak biñ def yomb bu fekkee nga am su loxo yoo xam si nga jaar samay dégg culture benn te tonton aw si nii moom laa def lu bëri bëri bëri ba bëri ci man parce que ñu fi nekk day bëri booy ñu leen formé jox leen ay métier mais man def ma lu suma waral dëkk Diourbel ñu jàngal ma am métier am xam-xam ñu partagé ko waa Bawol mais moom dafa def benn partie bu am doole ci activité bi projet ñu réalisé bu si nekk rek nee na ma Ismaïla moo tax lépp lu am biir Bawol keroog ñoom français bi ñu ñëwee man mënu ma wax fii biir Diourbel moom su xasee ba war a ma amatuma droit wax moo sama kilifa fii moo tax keroog mu bàyyi nañ ko moom mu ànd ak ñoom ba ñu créé Soyons Ensemble ba Soyons Ensemble bi jàppale tey yéen xale yi ci dab bi nga xam tey moo koy mel ñoo ko doon ci jàpp yëpp ay réunion moom moo ne laaj ma leen naan bureau climatisé la ñu am ay léegi bureau climatisé la ñu am espace courant ce que je demande à Sonatel au Rockefeller Center à Festic ñu jàppale soignant ensemble suñu baax a baax côté matériel muy incubé ay jeunes yu incubé di ñëw ci biir day dem dans les villages amul moyen amul oto amul dara mu dem dans les villages xool nit ñoo am problème ak ñoo amul problème mu jàppale leen avec surtout day jëriñ képp ku dëkk jëriñ xam nga tey am na ñu bëri ñoo xam ne bëtu da jot doo am outil kay wala dara ñoom dinañ def ay milliers de kay dañ koy wuti ñëw ko jox leen donc ce n'est pas Ismaël qu'on doit remercier mais ce sont ces gens là parce que Ismaïla dafa ñëw pour faire fekkee ñoom dañu def peut être qu'on su toujours gisoo ñoom ñoom def man tey jii du donc je remercier les femmes qui ont tey Lévi qui ont tey Lévi pour ñoom assister ci formation bi te ci waa euh, lancement bi mais aussi remercier les abonnés Taïgi, ils sont là dans la salle wala si ñu une vidéo ñu ngi filmé pendant 4 jours météo trop 9h15 vais jël leen. parce que dama am loo xam te dama leen ne loolu leen gëm loolu mooy réussir ëllëg en États-Unis ils ont créé huit entreprises yoo entreprise Total Solar dégg nga leen sànq donc impact la certification yi incha allah bu joxe seen certificat yi ñu ngi waagal nag benn xew boobu rëy ñoom nag dañuy tànn béy benn grave am benn problème loolu ko bëggee rek noonu donc di leen remercier bu baax a baax di leen wax les images dans vos groupes dans vos S ngeen dem tagge en digital center ngeen dem tagge Fassou Agne ngeen dem tagge euh, Festic ngeen dem tagge Sonatel ensemble ngeen dem tagge ville de Diourbel euh, tout le monde loolu mooy permettre information bi dem di féliciter sama frère nga xam tey moom choisir nañ ko pour le projet IDC bi nga xam tey ñoom def nañ ko ensemble et que lii rek mooy gëm-gëm te daal Sonatel Tata Awa dañu ma invité au Bénin pour nous former six nationalités. Je demande que au président assurance et que peut-être Inch'Allah, pour la vie, l'Afrique ñëw je suis en plus de apprentissage. c' C'est eux qui m'ont formé ba bataille de ma am yenn compétence yu mag

xam-xam bi di gën a yokk wala même sooy ensemble ngay ñëw ñoom ne leen ah mais sooy ensemble quoi nekk na parce que moo la jox local bi te leen courant bi leen lépp donc remerciement yi foofu ñun day commencé di leen wax yàlla na yàlla fay ci bawol ngeen ñëw ñun dañuy retourné après même suñu salle te dara yàlla na yàlla bàyyi bu baax a baax sama maam baax na nii moo ma jàpp mooy gis nga may déglu mooy nekkee xaral ko mooy nekkee mag donc mbégte rek laa xool ne àddina bi di remercier aussi sama frère Ibrahima Sidibé waaye yëppam Dakar yow en tant que formateur yaa ngi fàttali ak kër Thiel ñëw pour jàpp ci formation pour ñëpp. pare naa pour ñëw ci communauté rurale yëpp pour jàppale leen incha allah rabbi buñ leen boo leen en sonance rek maa ngi seen ginnaaw. la la décentralisation de Pastef waxoon naa ko fi après Diourbel Ndar Saint-Louis ci gànnaaw fu ma teg ci région yi incha allah rabbi danaa fa dem femme ngi teewlu Pastef ñëw installé ko avant événement bi di jeex. waaw monsieur le président maa ngi lay ziar bu wér a wér ci présence bi di la jégalu aussi tamit ci temps bi yëpp merci encore kenn ku si nekk li mu wax madame Niang ñu ngi lay remercier a marqué aujourd'hui sa devise boobu aussi posé naa ko bu baax macha allah information information mobilisation. aw si yaakaar naa ne loolu dina xaw a dëppoo information formation transformation yaakaar naa loolu di ko mën a dégg bu baax kon ñuy remercier Solange ci teewaay bi mboolem ñi nga xamante ne jóge nañ fu sori tamit ñu ngi leen di gërëm rawatina waa Nebe ak waa Ndindi seen taxawaay rafet na macha allah Solange je crois que interpellation bi xaw na Il y a na questions c'est vrai répondre à leen mais ce que vous ne c'est la ñu l'intervention, a remarqué ci intervention accompagnement suivi bi ak encadrement bi ko c'est vrai que la formation est léegi boo xoolee pour par rapport à l'utilisation de la femme La formation est bëri na na mais ce qui manque un peu c'est l'accompagnement parce que ku jugee ku nekk ci àll bi nga formé ko pare amul local amul financement amul loo xamante ne mën na koo liggéeyee yaakaar naa ba tey soo ko accompagné soo ko formé ba pare da koy mel koy jaaxal kon dafa mel ni interpellation la boo xamante ne yaakaar naa ni dégg ngeen ko dugul ci noppi ku tëx waaw di remercier bu baax a ku mel ni Cheikh Seck boobu dafa war a am heureusement bi nga xamante ne facebook yéen it da ngeen di fonk partenariat ana seen si yaakaar naa ne loolu bu ngeen demee Touba euh, plateforme boobu war na mën a nekk mhm. te loolu mooy dem ba àgg ba yaatu ba ci réseau bi nga xamante ne war nañ koo créer pour femmes yi mën di jokkoo saa su nekk waaw ci jigéen ñi tamit ba tey wax nañ fii diggante jigéen ñi nga xamante ne dañoo nekk ci kër yi war koo lëkkale ak seenub liggéey mhm. yombul nag yombul nag ku ne xam na ni réseaux sociaux yi léegi dafa mel ni li muy defar li muy yàq moo ëpp li muy defar mais li ñuy sant rek jigéen ñi mooy ñu fexe positive ko seet li nga xamante ne boo ko defee mu mën la jural benn njëriñ yaakaar naa loolu tamit euh, day am solo ana Ismaïla Ismaïla waaw Ismaïla dafa mel ni mos nañ fee daje fii gouvernance nga def benn prestation bu am solo waaw loolu tamit vraiment dañ lay encouragé si lu mel beaucoup nga continuer parce que tamit loolu moom mooy dundal gox. et c'était pour la couverture numérique mhm. euh, du défilé du 4 avril. donc vous voyez <laughs> même non formés on couvert en le défilé du 4 avril qui s'est donné à à ce jour-là il y a eu un ñu nekkoon ci autorité ci tribune dès le gouverneur gis nañ ko ni mu doon couvrir keroog événement bi. loolu tamit en même temps encore soo jëlee ay xale formé leen ba tey ñu mën a taxaw sa place li nga daan def lu koy def macha allah kon loolu mel na ni lu positif la kon dañ la ci ñaanal suñu borom ah gën a jàppale bu baax a baax xëy na fi ñuy daaneel rek mooy partenaire stratégique ku mel ni ñoom Ismaïla ak euh, Ndeye Thiam ak Soyons Ensemble euh, festik ngeen jàpp ngeen jàpp ñii nag ñoom ñooy cordon ombilical bu ngeen nekkee Dakar. su ngeen bëggee jot ci jigéen ñi yaakaar naa ne su ngeen jaaree ci partenaire stratégique dangeen leen jot mm. kon xëy na foofu rek laay daanal sama kàddu di ñaan suñu borom daje bi bu bañ a nekk daje bu mujj te buñ fi jógee aussi comme niñ fi toogalee gouverneur ah nous allons faire un petit rapport mm-hmm. jox ko gouverneur moom mu xam tamit li xawoon fii mm-hmm. jonn li nga xam ne mooy président amical bi bu CRD bi woo na ma léegi amoon na yéene teew bi mais ñu nit dañ ko fiy nekkal ñun tamit ñi nga xamante ne tey jii chef de service régional lañu nekk fii ci gox bi am ay mission yoo xam ne dañu koo jox bokk na ci ñu jàppale communes yi bokk na ci ñu jàppale OCB yi mais bokk na tamit bépp politique boo xamante ne programme état wala projet ñu accompagner ko te lii ngeen di def tamit génnul programme de l' parce que état bi am nañu fulla ba nga xamante ne soo ñëwee indi leneen lu dëppul ak ñoom seen politique dañ koy jël teg ko na te gouverneur aussi bu fi toogoon ak mu ñàkk fee loolu su fekkoon ne yëg na ni yéen a ngi leneen lu bokku ak politique état du ngeen fi sax dugg kon moom it wax dëgg yàlla ñoo ngi koy da ngeen koy remercier waale ndax tamit jël na local bi jox leen ko gratuitement parce que xam na enjeu bi xam na intérêt njëriñ ak njëriñu daje bi. mënoon ngeen am tey mbooloo mënoon nag mu bëri nañu mënoon nañu am fu gën a yaatu mais bu préféré tey un jour non ouvrable recevoir leen fii c'est parce que xam na ni li ngeen di dox jàmm ak salaam la te jàmm ak salaam gouverneur moo jàmm ak salaamu région bi mooy jàmm ak salaam département bi commune bi état bi dans son ensemble kon aussi ñu ngi remercier waat ñëpp rek ñaan ñaanalaat ñëpp kenn ku si nekk rek mu mën a delluwaat ci itteem ñaan yeneen rencontre yi nga xam ne moom la ñu prévoir ngoon ma publicité leen képp koo xamante ne am nga jot te mën koo fekkee yaakaar naa ni loolu ba tey njëriñ la yu dikkaat ci jigéen ñi kon ñaanalaat ñëpp jàmm di wax ni daal tëj nañu daje tey ba beneen yoon incha